ñaareelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi yeesu jàngale na ak sañ-sañ wute woon na ak xutbakat yi fariseen yi ak xutbakat yi ñoo doon njiiti dine yawut yi fariseen yi yokk nañu ay santaane ak ay aada yu bare ci fukki ndigali yàlla yi aada yooyu ak ndigal yooyu ñu ngi jëmoon ci mbirum set benn bés ñu gis ay taalibe yéesu ñuy lekk ak seeni loxo yu setul ci aadu yawut yi nit balaa muy lekk dafa war a raxasu raxasu cet ñu laaj yéesu lu tax ay taalibeem topp ñu aada yi yéesu tontu leen li esayi waxoon xeet wi ñu ngi may teral ci seen gémmiñ waaye seen xol sore na ma seen màggal amul benn njëriñ ci lu ñuy jàngalee dénkaane nit kese yéesu netti leen da du ngeen digali yàlla jublu ci aaday nit nit ñi yaakaaroon nañu ne lekk lu dagan bokk na ci li yóbbu nit àjjana yéesu ne leen aw ñam du tax nit ànd ak sobe ñam du dugg ci xol ci biir lay dugg ba noppi ñu génne ko fu làqu li tax nit ànd ak sobe mooy li muy wax ak li muy jëf xalaat yu bon ak jëf yu bon ni ki njublan mer añaan ak yeneen yu ni mel ñu ngi jóge ci biir xolu nit yàlla xoolul jëmu nit ki ak i jëfam xol bi lay xool njiiti diine yi li nit ñi doon gis ci ñoom lañu gënoon a yitteel ak li yàlla di gis ci ñoom yéesu artu na nit ñi ci ñu bañ a teg seen bopp ni ñu jub mel ni farisen yi yéesu woowe na leen naaféq ñu ngi jàngal nit ñi li ñu war a def waaye ñoom ci seen bopp duñu ko def léegi ma laaj leen juróom ñett lan la farisen yi ak xutbakat yi gëmoon ne moo leen di yóbbu àjjana gëmoon nañu ne war nañu topp fukki ndigal yàlla yi ak lépp li ñu jàngale teg ko ci ndigal yi juróom diine yu bare dañu ñuy sant ñu topp ay yoon ngir neex yàlla ba mënu mucc lan la diine yooyu fatte dañu fàtte ne nit bàkkaarkat la kon mënul topp ndigal yi fu mu toll yàlla mi sell du nangu kenn ci jotaayam donte benn bakkaar la am bakkaar dafa laaj ak pey fukk ci njàngalem yéesu ndax li nuy lekk wala li nuy laal dina tax nu ànd ak sobe déedéet fukk ak benn lan mooy sobe lépp lu bon tey génnee ci xolu nit sunu bëgg-bëggu xol mooy li tax nuy bàkkaar bàkkaar mooy taxal nit sobe fukk lu tax yeesu wooyee farisen yi ak xutbakat yi naafeq ndaxte li ñu doon jàngale daawuñu ko jëfe dañu bëggoon nit ñi màggal leen wutuñu woon lu neex yàlla